tàmbali ci sant yàlla bu baax julli ci yonentam bi euh, di di ko gërëm moom lu chef de l'État qui a voulu nous recevoir ci ci diggante bu xat wax dëgg yàlla waaye loolu dañ ko ci sant day day dugg rek ci li nga xam ne mooy la nga xam ne mooy cëram mooy dox ci njaboot gi nga xam ne daf leen yilif ñoom ñëpp mu gis ne jafe-jafe am na ci mu gaaw woo leen ngir limiter limiter jafe-jafe yooyu waaye itam pour accompagner leen suñu am ay solution donc ñu ngi ko ciy sant bu baax di sant itam mbooleem euh, gouvernement bi nga xam ne euh, le premier ministre Amadou Ba moo ko jiite di leen sant di leen këram ndax ñoom ñëpp depuis mbir yi mi ngi am ku ci ne ci li la concerné yaa ngi taxaw temm pour jàmm dellu si pour que population yi mën a nekk ci li nga xam ne mooy euh, li ñu li li ñëpp bëgg mooy jàmm réew mi jàmm ngor waaye jàmm Ndakaaru ak jàmm jàmm àddina bi yëpp. ñu koy sant itam ci ci diligence bi ndax def na lu lu lu am solo. mooy ne en tant que kilifa ku njabootu ñëpp bu bu réeroo amee ci njaboot gi nga dajale waat njaboot gi yëpp xool la nga xam ne moo indi réeroo bi wut wut saafara def na ko def na ko tey woonuñu ndax démb ba ñu amee réunion bu ñu jógee am euh, ay proposition yu fa amoon am ñenn ci askan bi ñu ko ñu ko rafetlul waaye itam ñu ci ëpp itam ñu gis ne am na leneen lu ca nekk sax loo xam ne du du askan bi waaye loolu lépp dañ koy sant yàlla la mu ci décidé tey mooy ba ñu ñëwee mu xool jàngat gis ne. Euh, lii de xelaat na ni moo indi woon jafe-jafe bi ci saa sa wut ci solution ne lii moom laa décidé pour corriger ndax espace bi dafa toll woon ci 6000 mètres carrés un peu plus de 6000 mètres carré ba ñu démb la ñu jëloon démb mooy dafa am ñu ëppale tuuti ña ca des amaana loolu moo indi fitna bi mu ne léegi ci kilifa comme maa njaboote ñëpp ma xaaj ko ci digg bi jox waa Ngor euh, moitié bi jox euh, gendarmerie itam moitié bi pour que ñëpp mën a mën a nekk ci jàmm loolu nag dañ ko ciy sant bu baax a baax a baax ndax loolu rek la ñuy xaar kilifa mooy bu jafe-jafe amee vraiment nga taxawu taxawu njaboot gi yëpp bu baax a baax ci loolu. ah jëlee nañ ci itam euh, mbégte mu rëy ndax au mbir moomu ci. compense yi fexe na ba def li nga xam ne lépp dañ ko ko sàkk dañ ko sàkkoon ci moom ne ko lii de bëgg nañ ko pour dimbali askan bi seen taxawaay gën a ñoŋ mu taxaw ci taxawaay yu rëy ndax euh, décider na stade bi nga xam ne moo ne Ngor muy stade communal bu Ngor xam ne amul newuloon ci turu Ngor mu jël décision ne loolu dinaa ko jël def ko ci turu waa delloo ko waa Ngor euh, ba nga xam ne moom yàgg nañ ko jàmbat itam di ko wax mu jël décision ne diñ jox nañ la suuf si moitié boobu mën nañ fa def euh, lycée bi waaye li ko gënaloon sax mooy ca stade stade bu espace bu gën a rëy lu toll ci 5000 mètres carrés mu tabax fa lycée boo xam ne lycée bu mucc ayib la bu moderne la waaye bu mag lay doon te loolu moom moo koy c'est l'état qui va qui va construire sur fonds propres et la profité sax ñaan ko bu dee mën naa nekk moom mu ñëwal boppam def pose première pierre bi ndax loolu c'est historique